weesoo loolu indi fi nag euh, suñu ganu bés gi nga xamante ni saa su dañuy euh, rek euh, waxtaanee loo xamante ni dafa ñeel wàllum actualité jamono ji xam nañ ni li gën a fës bokk na ci inondation bu weesoo wàllum Covid inondation bi moo nekk li nga xam ne moo gën a fës ci wàllum actualité waral donc moom lañ fi fas yéene waxtaanee en premier lieu dinañ ci toftal li nga xamante ni moo jëm ci Covid bi waaye itam li jëm ci wàllum politique rawatina élection. élection locale yi nga xamante ni moom la ñu dégmal ak li nga xam ni moo ci bees ci kanam tuuti nañ fi dalal député boobu di Cheikh Abdou Mbacké donc euh, bu bokk gis-gis moom la ñu fas yéenee sekkal waxtaan bi euh, léegi léegi ci kanam tuuti ñu daal di leen di jox li nga xam ni moo gën a fës ci wàllum xibaar dañ koy daal di ak lu jëm ci caution bi nga xam ni moo fas yéenee rek moom la ñu daal di tëral ngir képp koo xam ni bëgg nga daal di nekk euh, ci bokk ci jongante yi boobu les ci nga nar di 15 millions francs CFA fukki euh, fukki millions ak juróom donc ci suñuy koppar ak ci ay millions donc loolee mooy li nga xamante ne ministère de l'intérieur daal dina koy démb xaatim à travers un communiqué di xamle rek nii képp koo xamante ni dafa fas yéene bokk euh, bootu ci coalition wala ci benn parti boo xamante ne en tout cas légalement constitué ci boobu les caution nga nag tënk mu nekk ci élection locale wala législative ñaari type d'élection yëpp képp ku ci fas yéene rek dem ci jooyu lay da nga fas yéene yéene euh, joxe caution boobu nga xamante ni dañ ko fas yéene jébbal euh, caisse de dépôt et de consignation loolu mooy li tukkee ci communiqué bi nga xam ne génnee nañ ko arrêté la sax donc de arrêté la boo xamante ne mi ngi tukkee ci euh, ministre de l' ministère de l' intérieur donc moom ngeen di gis noonu arrêté boobu moom mooy daal di rek jëmmal li nga xam ni moo jëm ci caution bi rek firndeel ak wane lan la ñu war a yóbbu comme caution fële ca test dépôt de consignation bu weesoo lool ñu daal di taxaw ci conférence de presse bi nga xamante ni Thierno Bocoum daal dina koy amal démb moom mii di euh, njiitum agir daal dinay taxawal démb ab conférence de presse di xam ne rek ne euh, li nga xam ni moo jom ci coalition boobu ñu doon annoncé di euh, coalition bu opposition bi bëgg a taxawal ñu ko sekk di euh, Karim Wade ak taxawu Dakar ak waa PDS PDS taxawu Dakar ak kii di PASTEF donc boobule coalition gannaaw bu mu ko ŋàññee bi nga xam ne rek ne coalition calculée la ndax moom jàpp na ni bu ñu saytoo bu ci biir lee coalition ñu fas yéenee demee ci élection locale yi dañuy rek xool nu ñuy nu ñuy fexee ba en tout cas euh, calculer boobulee euh, booloo contre euh, la population mais defuñu ko ngir askan wi bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom wax itam ju lu jëm euh, ci euh, sortie ba mu defoon déclaration ba mu defoon ak li mu ko ci jural lépp ci ay coow moom mi di Thierno Bocoum ñëwaat na si en tout cas ŋàññi bu baax a baax loolee ñuy waajal nga xamante ni daanaka defaguñ ci sax communiqué officiel waaye moom jàpp na ni lu nar am la te bu amee doon na loo xamante ni askan wi waruñu ko seetaan benn yoon bu ñu jógee ci loolu ñëw ci euh, beneen euh, leader de l'opposition di euh, mouvement gëm sa bopp leaderam ji Bougane Gueye Dany démb gannaaw bañ ko convoqué fële ca commissariat moom la mu fa jëlee moo di ab lettre boo xamante ni bu Dakar moom moo ko daal di rek jox ultimatum ngir mu dindi lépp li nga xamante ni ay panneau publicitaire la di rekk ñaax askan wi ñu daal di dem rek bindu ji ci liste yi loolu nga xamante ni moo di panneau yi mu teg un peu partout au pays donc le pays dañ ko ko daal di interdire ñuy xaarandi euh, ba xam euh, dina jëfee boobulee euh, bataaxal comme liñ ko ci digal am déet loolu ngeen di gis mooy li nga xam ne moom lañ ko jébbal gannaaw ba mu demee commissariat wuy ji ci convocation bañ ko joxoon mu daal di si jëlee lee lettre dinañ ci gën a indi ay détails ñu daal di koy jeexale ak li nga xamante ni moom moo jëm ci euh, bilan Covid bi euh, wala laata loolu sax euh, ñu wax rek ci délégation bi nga xamante ni réewu Mali la ñu jógee di ministre bi ñu dénk wàllum transport ak ministre bi nga xamante ni moom moo daal di rek chargé des Maliens de l'extérieur donc gannaaw jëye bi nga xamante ni moom moo am fële ca Kaolack ab accident boo xam ni ñu bëri ñàkk ci seen bakken ba indi woon sax ay coow diggante transporteur yu féetee foofu ak population bi loolu nag moo tax ñoom ñuy daal di ñëw rek dox ci tànk jàmm fii ci biir Sénégal. mastaw yi nga xamante ni ñoom ñoo daal di rek ñàkk seen euh, doom ak seen ay parents ci yooyu lee euh, ci boobule accident waaye itam gën a xool naka la ñuy rek fexe ba lu mel noonu bañ a amati diggante Sénégal ak Mali tukkib nemmeeku boobu euh, démb la ko délégation boobu amal fii ci biir réew mi ñu daal di koy jeexale ak communiqué bi jógee ci ministère de la santé et de l'action sociale jëm ci wàllum bilan Covid 19 88 cas positifs démb moom la ñu enregistré liy firndeel rek ne cas yi mi ngi wàññeeku depuis un certain temps ñu ngi ci 3,70 pour cent de taux de positivité gannaaw ba ñu defee test bu toll ci 2377 88 moo ci génn ci ay cas positifs yi nga xamante ni nag moo di cas contact yi fukk ak benn la ñu toll cas communautaire yi ñu ngi tollu ci 77 di juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar démb ñi wér si patient yi ñu ngi toll si ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay doomu aadama juróom fukk cas grave donc ñoo nekk jamono ji ci service de réanimation yi li ñu enregistré ci ay doomu aadama yu faatu ci mbas mi démb toll ci juróom-ñeenti euh, doomu aadama jamono ji Sénégal mi ngi faj ci lu toll 12 euh, 445 euh, patients yoo xam ni ñi ngi sous traitement 50 yi ñoom ñooy ay cas grave 1680 ñoom ñoo daal di faatu ci mbas mi diw bi mu fi duggee ak léegi ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo wér ci mbas mi lim bi ngi toll ci 7889 euh, patients yoo xamante ni jot nañ cee wér gannaaw lim bi buñ ko xaymaa lépp 2 mars 2020 ak léegi ñi am virus bi fii ci biir Sénégal officiellement ñi ngi toll ci 72 015 euh, personnes. loolu moo nekkoon euh, li nga xamante ni euh, ñoom euh, la ñu daal di voilà loolu moo nekkoon li gënoon fës di fàttali rek ni ñi ñi vacciné diir bi fi vaccin yi duggee ak léegi mi ngi toll ci 1 million. ak lu topp 1 million 143 mille 491 euh, personnes yoo xamante ni jot nañ leen ñakk euh, ci euh, lu jëm ci campagne de vaccination bi ñu dem xool yéenekaay yi li gën a fës ci quotidien yi tey ñu dooree ko ak le quotidien mi ñëw ci wàllum Covid 19 ak ki nga xam ni moo di Hissène Habré nga xam ni dafa nekkoon fii ci prison yu Sénégal yi donc jamono ji nag moom dañ ko daal di mi ngi fële ca urgence. France euh, gannaaw kaawam bu mu gënee critique ndax euh, jamono ji dafa am euh, lii di jàngoroy Covid 19 te état wu santé jamono ji dafa gën a tar bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di ñu ko xamal bu ñu jógee ci le quotidien ñëw ci réew mi quotidien di jàpp rek ne bu ñu saytoo li nga xam ni moo di arrêté bi ministère de l'intérieur daal di génnee mën nañ jàpp ni 30 millions la xaar ci candidats yi ci élection locale yi nga xamante en tout cas Euh, mu ngi euh, concerne ñaari type d'élection ci ndax bu ci nekk quinze millions la muy local di législative jàpp nañ ni ab diktat la boo xamante ni nii euh, di politique yi ñoom ñoo ko daal di rek tëral ngir Euh, forcé ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a dem ci jongante yooyu l'info quotidien ñoo ci alliance bi nga xam ni ñu ngi koy séntu diggante euh, quatre grands partis euh, fii ci biir Sénégal wax na itam ci wàllum inondation ki ci àddu mooy Thierno Bocoum amul dara loo xamante ni bàyyi na ko ginnaaw wax na bu baax a baax lu jëm ci ñaari pàcc yooyu nga xamante ni jamono ji bokk na ci lu gën a sonal réew mi ak indi coow ci biir réew mi lépp mi ngi ci biir l'info quotidien mi ñëw woon ci conférence de presse bu démb bi Le Soleil moom dafa daal di rek def benn taxaw seetlu ci kii di Émile Badiane nga xamante ni personnalité la en tout cas il fait euh, partie des figures euh, emblématiques yi nga xamante ni euh, tax nañu ràññee ko ci wàllum histoire ñëwaat na ci parcours am ñëw itam ci ki nga xamante ni moom biographie am et tout donc découverte la daal di def ci kooku nga xamante ni moo di Émile Badiane def ay jalooreem ak Euh, li nga xamante ni moom moo ji euh, jaar-jaaram témoin quotidien dafa daal di taxaw ci caution élection locale yi nga xam ni dañ ko fixé ci fukki million ak juróom ci wàllum ci suñuy koppax opposition bi nag am na ñoo xamante ni jamono ji ñu ngi koy nañ bu baax a baax ndax jàpp nañ ni rek euh, dafa tax euh, ñenn ñi ñu daal di leen fas yéenee beddi ci boobule euh, jongante waaye itam ki nga xamante ni moo di Rougui euh, Diallo moom di député ak ki nga xamante ni beneen député itam donc assemblée nationale am ñu ci jot a àddu di wax rek ni il faut que ñu def lu mel noonu ngir filtrer yenn ci ay candidats tribune quotidien dafa daal di ñëw ci anam yi nga xamante ni moom la yore yoree wàllum mbënn mi fii ci biir Sénégal diggante 2012 ak léegi 780 82 milliards yi nga xamante ni moom la ñu wax ni moom la ñu injecté ci wàllum gestion inondation yi euh, ana fan lañ ko dugal tribune quotidien tey ci ponk yooyu la daal di indi ay leeral yu am solo Vox Populi dafa daal di ñëw ci état de santé bu Hissène Habré nga xamante ni dañ ko testé positif jamono ji mi ngi mu ñu hospitalisé te jàpp nañ ni sax euh, kaawam dafa critique loolu ci euh, jamono ji bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jege tax rek ñuy gën attention ñi nga xam ni ñoom ñooy autorité yu féetee fii ci réew mi libération yéenekaay di rek euh, wax ci lu jëm ci euh, bateau boobu di Aline Sitoé euh, Diatta ndax bañ ko gëjee gis mu apparaître depuis le 16 mars 2020 la kenn xamul fan la nekk jamono ji te nekk na loo xamante ni nag jaaxal nañu bëree bëri tax libération daal di si dikk ñun di indi leeral ci li nga xamante ni moo jëm Euh, ci batu boobu di Aliou euh, Aline Sitoé walla a nga xamante ni euh, jamono ji kenn tegu ko bët las quotidien di wax ni euh, bu ñu xoolee ci yenn région yu ci mel ni euh, Saint-Louis ak euh, lu ci mel ni également Fatick gis nañ ni ak Ziguinchor inscription yi ci liste électorale yi dafa mel ni mbir mi daal taxu ko takku noonu gisuñu ay nit yu bëri yoo xamante ni ñi ngi dem di inscrire ji te loolu dafa indi njàkkare en tout cas ci yenn ñi nga xamante ni ñoom ñoo féetee ci ku jeeg politique bi critique quotidien ñëw ci caution électorale bu euh, bu ñu daal di tëral ci fukki million ak juróom euh, di wax rek ni ab filtre la bi nga xamante ni dina fakastal ñi nga xam ni jamono ji seen euh, poste demeewul noonu seen loxo jotul seen ginnaaw te ñu bëgg a daal di rek présenté wu ci local yi loolu la Critique Quotidien daal di xëy titré ci xëtam bu njëkk gannaaw critique quotidien les échos ñëw ci 117 migrants yi nga xamante ni euh, dañ leen daal di arrêté fële ca Espagne 20 yi ay mineurs lañ euh, ñett ñi ay jigéen lañu bu ñu xoolee lim bi yëpp nag ñu ngi tollu ci téeméer ak euh, fukk ak juróom-ñaar ci ay migrants yoo xamante ni ñu ngi jóge woon Sénégal doon utali Espagne ñu daal di leen di intercepté loolu di wane rek ni. émigration clandestine moom ba jamono ji mi ngi woy en tout cas euh, di euh, continuer fii ci biir euh, réew mi ñi nga xamante ni ñuy fas yéene rek jël gaal gi ngir utali Europe ba tey mi ngi woy di def ay jëye donc loolu moo nekkoon. li gënoon fës ci wàllum euh, yéenekaay yi ñu doon leen ko dégtal di leen fàttali ni ne nous en direct sur les réseaux sociaux mën ngeen ñu suivre en direct sur Facebook wala sur YouTube boo leen amee aussi ay commentaires et suggestions euh, donc dinañ ko prendre en compte ñu daal di dem xooli euh, benn page publicitaire marquer une petite pause et puis daal di ñëw dalal suñu ganu bés bi di Cheikh Abdou Mbacké député à l'Assemblée nationale c'est tout de suite